auzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin walhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñëwaat ak yéen ci benn ci jataay yi nga xamante ni daayira Rawdu Rayaahiin koy amal ngir waajale ko màggal gi tey ñu fas yéene ànd ak yéen ci tomb bu am solo di asirimul ijtima di euh, màggal Tuba wa dawruhu fi tanqi fi tanqi asirimul yi di rol bi nga xamante ni màggal Tuba am na ko ci euh, dëgëral li ñuy wax paix sociale euh, di dawru màggal fi tanqi asirimul ijtima yi tomb boobu nag kenn ko war a àndal mooy gëstukat bu ñu xam di Serigne Fallou Boussa Hassan mu war ko waxtaane ci tomb yi dana def benn introduction waxtaane lan mooy asirmu ijtimaa yi lan mooy paix sociale waaye na waxtaane li nga xamante ni mooy euh, mu xawi maat yi nga xamante ni moo koy dëgëral waaye waxtaane mu xawi xaar yi nga xamante ni moo koy gàllankoor su noppee nag ñëw ci tombub role bi nga xamante ni màggal am na ko ci dëgër li ñuy wax euh, paix sociale mooy filmu ijtimaa yi kon dañuy dalal Sëñ Faliilu Buso di ko wax tafaddal auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu eh, suñ xat fàkka ñu ngi lay nuyu jaarale ci sunu ci mboolem ñi nga xam ne ñu ngi topp ak di seetaan di yóbbu ak ziyaar mi jit al xalifatul am li moo di Seex Muhammadul Muntaxa ñaanal ko sunu borom yàggal ko fi te moo tëlul ko ay naanam waaye di ndokkeel mboolem jullit yi mboolem taalibe yi ci xew-xew mag bi ñu jëm te muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar bis bu mag bi nga xam moom la ñuy teeru di ñaan su borom àgg ci ak jàmm ak salaam te man koo jooxe ni borom santaane woon nu jooxe ko noonu di ñaan tam ci barkeb weer bi ñu bëgg a dugg muy weeru safar ak fukki fan ak juróom-ñett yi sunu borom tàppiwaat xol yi waaye tam itam leeralaat dënn yi waaye itam jubbantiwaat xel yi ci jamono ji ñu toll nii nga xam ne nii bokk na ci dañ koy gën a xàmmee mooy jamono joo xam ne nii ku nangu ñi nangul seen morom dañoo bëriwul ku nekk da ngay bañal sa morom bañal ko àqam ak sañ-sañ ak yelleefam ci mu wuute ak yow ci giseen ci sabab yu baree bari nag ñenn ñi dañ ko teg ci diine nanguñ ku wuute ak yow ci pas-pas ci diine wala ku wuute ak yow ci pas-pas ci politique wala sax ku wuute ak yow ci cosaan ci xeet wala sax ku wuute ak yow rek ci kuréel gi nga xam ci ngeen bokk donte yéen a bokk yenn diine ji loolu ko ne xam na ne bu fa mu tasaaroo maanaam menace lay doon ci sécurité ak stabilité réew mu mën di doon waaye doomu adama yi ci kaw suuf muy jamono joo xam ne tam bokk nañu koy xamee mooy dafay mel ne nit ak doomu aadama daf cee dellu gannaaw ba àgg ci dara joo day yem ñi nga xam ne sax doonuñ boroomi xel ndax sunu boroom moo ñu mayoon xéewal ñu xamante nekk ay bokk waxoon ne ci xéewal sunu boroom ci la mujj nekk ay bokk waaye day mel ni doomu aadama dafa dem ba xéewal googu gisatu ko wala mu weddi ko léegi nag ba mu ba ñàkk ko nag ci lay door a xam ne xéewal googu ci la newoon léegi nag xel yëpp ak xalaat yëpp dellu ci nu ñuy fexee ba dund googu ñu doon dund ci jàmm ak salaam bokk googu ñu amoon démb ak ki démb nu man koo delloo siwaat te ko na xam ne ñun fii ci Sénégal bokk na ci suñuy cëslaay suñuy valeurs yi nga xam ne xamee nañ ko senegal mooy ku nekk nangul sa morom ci biir Sénégal da ngay dem ci genn njaboot fekk fa pas-pas yu wuute da nga dem ci genn njaboot fekk fa ab julit ci biir njaboot gi fekk fa koo xam du julit ci biir njaboot gi mën naa nekk chrétien wala mu nekk sax koo xam ne nii yeneen façon jaam yi lay jaam da nga dem ci benn njabootam fekk fa ab murit fekk fa tijaan mën naa am ñoo bokk ndey ak baay wala ñu nekk ay mag ak ay rakk kii nekk murit kii nekk tijaan donte ñoom ñoo bokk ci islam yi nga dem genn njaboot fekk fa mag ak nekk socialiste kii nekk libéraliste kii maanaam nekk ci wàllum politique idéologie politique ñu wuute ci donte ñoo bokk lépp gis genn jabar gi tam ki ma di dund ak ki nga xam ne nii koom-koomam demeewul noonu te kenn du ca xeeb morom ma ñuy dund ci jàmm ak salaam naka noonu nga gis ci biir njaboot gi ku wéradi ak ki wér ñëpp doo leen mën a xàmmee kon wuute googu amoon ci biir njaboot yi te ñun ñëpp ñu daan duy ci cohésion bu mat sëkk ak dëppoo gu mat sëkk kenn du xebat sa moroom kenn du bunduxatal sa moroom loolu defe naa ne ay valeur la yoo xam ne nii sunu mag ñu baax ñi dañ cee liggéeyoon liggéey bu mag a mag ba sàmmoon ko ba jébbal ñu ko waaye nag ku nekk xam na ni fi nekk nii valeur yooyu ñu amoon léegi dafay mel ne mu ngi ci yoonu am lu koy dëkk parce que yéene fagaagal te loolu boo ko xool dara wu jiitu wu ci nag ay njariñ yoo xam ne ni njariñ yu yu suufee la yoo xam ne nii doon njariñ yu am solo lool wala mu doon koo xam ne nii xalaatam dafa tëju ba mënta gis ne àdduna bi li muy yaatu yaatu ak li muy bari bari am na lu ñu buule am lu ñu boole li ñuy wuute wuute ci ay yeneen yi li ñu boole mooy ak nite nite googu nag ñu ñëpp moom lañu war a sàmm ku nekk sàmmal ko sa morom su fekkee nag sa xalaat ak sa xalaat dafa tëju yenn tëju yi da ngay jàpp ni yow la nga gis rek mooy moom ñëpp ci la war a dox ku ci doxul rek nga jàpp ne yow sama noon la bu ko defee nag loolu menace lay doon ci dund gi ñu waroon dund àndandoo di ko dund léeg-léeg tam mu doon xalaat boo xam dañ koy importé jële ko ci bitti nga dem ci bitti ñu la xalaat yu bees nga ñëw xeeb di say maam ne woon xeeb li nit ñiy dund tax nga gis ne la ñuy dund ak réer la lañuy dund ak tardé la la ñuy dund dañ ko war a soppi ba tax dootoo mën a sàmmonteeg nañ war a mën dund ci biir askan wu nekk benn kon yëpp nag dafay mel ne ñu ngi koy seetlu ci biir sunu dundin tax nag xew-xew bu toll nii bu amee te ñu gëm ni mën naa am taxawaay bu am solo ci delloosiwaat jàmm ci li ñuy wax paix sociale ni ñu ko waxee woon léegi jàmm ci biir mbooloo mi def naa ne loolu jotaay bu am solo la doon suñ fakk loolu ñoo ngi nuyu di sant ñëpp. jërëjëf euh, Sëñ Fallou ci introduction bu am solo boobu nga xamante ni wax na ko euh, mu mel ni dañ ciy dégg kon euh, wuute moom lu naturel la te yàlla noonu la tëgge mbir yëpp nga wax lu am solo ci nit ñi fi ni wuutee ci boo ñëwee ci ni yàlla binde nit keek ak euh, ni ni wutee ci ay euh, gëm-gëm ak ni ni wutee ci ay mbir yu bëri daal loolu di tomb bu am solo boo xamante ni danañu mën a may ñu jàll ci euh, tomb buñ xamee ni nit yàlla da ko nit ñi yàlla da leen a bind ñuy wute nga ñëwal ñu ci tombum nag waxal ñu dëgg-dëgg lan mooy li ñuy wax paix sociale buñ ko waxee mooy lan. jërëjëf euh, sëñ xat fakk kon li ñuy wax asilmul ijtimaay ci arab te ñu koy wax paix sociale wala jàmm ci biir mbooloo mi ay mandarga la yoo xam boo ko seetloo ci biir mbooloo mën ngaa jàpp ne mbooloo ma moom jàmm ma ngi seen biir léeg-léeg itam dafay dox diggante mbooloo mi ak ñi nga xam ñoo leen di atte maanaam ñi yore nguur gi ak ñi nga xam ñoo maan état bi ak population ñu ne bu fekkente ne xool nga ci niveau état ak population gis ne relation bi war a dox diggante état ak ñi mu yilif gis nga ne relation bu bu baax la bu dëgër la man ngaa jàpp ne kon réew moomu paix sociale ma nga fay am su fekkee ne seetlu nga ne population am nañ confiance seen état état bi leen yilif population am nañ confiance nga xam ne lu wax danañ ci ànd ak lépp lu ñu wax ñu gëm ko donte mën nañ caa wëtu ay ci gis yenn yi noonu ni waaye la jëpp dañu ànd ak moom boo da ngay jàpp ne paix sociale ma nga fa buñ demee ba population bi gis ne dogal ak atte yi nga xam ne nii état bi mi ngi koy jël dem jëm ci population bi ñu gëm ne dogal la yu maandu atte la yu tegu ci yoon ba nangu koo jëfee seen coobare bopp loolu lépp dana tax ñu jàpp ne kon population bi ñu ngi dund ci jàmm ak salaam donte nag ñoom sax dogal yooyu mën naa bañ a doon leen di jariñ directement waaye gis nañu daal njariñul mbooloo mépp ñu ngi ci mbooloo mépp àndandoo nangoo ko xam nga léeg-léeg nangu loo xam da nga koy nangu ngir ne mbooloo mee tax nga nangu ko donte sa njariñu bopp yow en tant que en tant que individuel mën na caa bañ a nekk loolu kon ni jàpp ne état boobu mën nañoo paix sociale ma ngi fa bu ñëwee ba gis ne mboolooy yi séq askan wi nga xam ne ñu wuute nañ ni ma ko waxoon léegi ci wàllu ay làkk wuute nañ ci wàllu diine wuute ci wàllu am ak ñàkk yu mel noonu waaye ñu gis ne wuute yi lañ bari bari lépp teewul mbooloo ñu ngi man di jëflante ak doxalante ak dimlante ak diggalante te kenn du ca eh, indi ay jafe-jafe seen diggante boo xam ne jàpp ne paix sociale ma ngay dox ca biir mbooloo moom kon nag loolu mooy sociale boo daal kon boo xoolee askan wi gis ne li ñuy tuddee dëppoo cohésion bu am bu mat am na seen biir loolu mën ngaa jàpp ne paix sociale ma nga fa tekkiwut nag ne wuute du am ci biir wuute dama naam waaye nag wuute ga da dul not dëppoo ga maanaam dëppoo ga day not wute ga ba tomb yooyu ñuy wute du am solo ndax mën nañu wuute ci ay détails waaye nag l'essentiel moom ñu ànd ci dëppoo ci mën ngaa jàpp loola dafay dëpp dañu wax ne kon foofa mën na jàpp paix sociale ma nga fa suñ demee ba gis ne daal nit ñi gëm nañ ne dogal ak atta yi nguur gi jël dem jëm dellusiwaat population bi gëm nañ ne loola njariñul population bi rek la cay séentu moom la cay dox te maandu na tegu na ci yoon mën nañ koo jàppee noonu bu nekk nag ponk bu am solo ci askan woo mënti gis mooy ne askan wu amul rek ngir ñu dox jëm ci kanam dana jafe ndax xam nga confiance mooy li mooy li tax aw askan dox jëm ci kanam su fekkee ne man yaa may gouverner te man mi ngay gouverner wóoluwuma la wala boo ma waxee du ma ko gëm wala boo ma waxee du ma du ma jàpp ne ay ne ca biir boobaa la ngay wax pour ñu jëfee ko dana jafe te nag ñi jiite bu fekkee la ñuy wax ñañ jiite duñ ko jëfe dox jëm ci kanam dafay jafe moo tax paix sociale askan wu mënti doon dañ ko war a sàmm ba askan yu mën a dox jëm ca kanam te su amee nag mooy waral ne léegi xëccoo maanaam biicoo yi doon am ci diggante biir mbooloo yi sëq askan wi loolu mën naa dem ba dootu fa amati danañ tam gis ne tam dana tax citoyen yi nga xam ñooy dund ci réew moomee danañ dëppook institution yi nga xam moo ŋànk réew moomee te nañuy doxee danañ fexe ba dëppook moom te duñ leen yàqal du leen gàllankoor dana tax tam nit ñi nangoo nekk benn nangoo jàppalante ku nekk fi nga war a féete sa moom coopération ak maanaam collaboration bi war dox diggante benn benn yi nit ñi loolu ñu man ko wëyal loolu lépp nag bu amee mooy tax kon askan yu mën a dox jëm ci kanam kon gis ne paix sociale maanaam ponk la boo xam mënta ñàkk ci développement ci réew mënta ñàkk tam ci développement ci askan waaye itam mënta ñàkk ngir nit ñi mën a dund ci dundin woo xam dana dëppoog na sunu borom bëggee woon ñu dundoon ci kaw suuf mhm. jërëjëf Sëñ Fallu wax nga lu am solo ci xamle lan mooy paix sociale mu mel ni Euh, askan yëpp bu maase woon xam dëgg dëgg lan mooy paix sociale te bàyyi xel li nga wax ni euh, paix sociale am tekki wut ñuy wuute waaye wuute googu wërta nekk loo xamante ni day xajamal euh, dund gi war a am ci ak jàmmoo loolu tom bu am solo la ginnaaw boon xamee kon paix sociale mooy lan ak solo si nga xamante ni am na ko ci am réew ak euh, rawatina réew moom ci nii bëgg naa euh, jëm kanam xaj na du ñàkk loo xamante ni euh, am na lu moo ko koy dëgëral. Hmm. yooyu boo ñu si doon tuddal lan nga ñuy wax ci yi nga xamante ni mooy tax paix sociale gën a sax ci réew mi. jërëjëf sëñ Fàkk kon dafay mel ne dunduk jàmmoo ci biir mbooloo bu ñu ko bëggee saxal am na ay ponk yoo xam ne ni mënta ñàkk ñun ñëpp ñuy sàmmonteeg moom ci doxalin. loolu nag dara jiituwu ci doxalin bu maanu ak maandu te waxoon naa ko léegi maandu te ak justice mooy fondement sécurité ak paix ci ci mbooloo maandu nag bu ko waxee tekkul ñu yemale ñëpp ndax nit ñëpp mënuñoo ndax ku nekk compétence yemuñu nit ñi yemuñu waaye nag mooy ku nekk lay sa ak ak sa yelleef nga jot ci ku nekk la si ak jot ci nag tekkiwul ne man maay wax diw lii mooy àqam wala lii mooy yelleefam ndax boobaa doo man maa cee dugal kon ku nekk da ngay xam yow ni fii mooy sa wàccuwaay lii nga war a am nga jël ko te doo jël sa morom moom loolu mooy day daytalu ñu mën a àgg ci li ñuy wax maandute ci biir askan mooy ku nekk xam ne man fii laa tàmbalee fii laa yem nga jël sa bopp fa nga tàmbalee yam fa nga war a yem te kenn du la ko dicté kenn du la ko imposé loolu bokk na ci lii kii moo tax bépp mbooloo moo xam ne nii seetlu nga gis ne jeng ak tooñ ma ngi fay tasaaroo jàppal ne paix sociale mun fa am bokk na ci li tax mu mën a sax ci mbooloo tam mooy lépp luy xeet forcé nit ki ñu sori ko force nit ki ci gisin par force ni ngay gisee forcé nit ki ci pas-pas par force lii ngay gëm yooyu yëpp ñu fexe ba moytu ko ku nekk ñu bàyyi la nga am sañ-sañu xool bala la doy nga ne lii moo ma doy bu dee ci wàllu xel xalaat bu dee ci wàllu pas-pas nga lii ma doy ma gëm ko loola ñu fekk si la ca bu ko defee ku nekk gëm la nga gëm ànd ak nag nga jox respe la sa moroom gëm ku nekk am saw gisin jàpp ne mooy bi waaye tam nga jàpp ne sa morom gis ni moom am man naa ko nangul ndax moom noonu la gisee loolu bokk na ci léegi bokk na ci ponk yi tam ba tey ñuy faral di diisoo di waxtaan ci bu waxtaan jotee balay waxtaan a weesu dañuy wax ne lépp loo xam da koy def te jëm si ci man te waxtaanoo ci ak man day mel ni da nga koo def ci contre maanaam defa defaloo ma ko daal kon nit ki li nga xam danga koy jël te jëm si ci moom mooy ay dogal muy ay jëflante yoo war a moom da ngay fexe ba da ca diisoo moom ba lañ cay jëfe ëllëg moom mu gën caa gis boppam fii ne bari na koo xam ne da ngi jékki-jékki gis mbooloo mi doxee nangam mu bedd boo ko wax mu ne man man kat yëgaluñ ma ko waxuñ ma ci dara boobaa kon dafay mel ne buñ ci waxtaanoo ak moom kon andi ko ci biir mbooloo mi du jafe kon diisoo ci lépp lu manti doon ci biir mbooloo moo xam ñi atte la moo xam ñi ñuy moo xam ci biir mbooloo yi seq askan wi la diisoo googu dafay ponk bu am solo ci eh, biir lii taxaw jàmm jooju ma a ñëw am na tam bu ci am solo loolu waxoon nañ ko léegi mooy nangu wuute mooy ñu nangu ne yàlla ni mu ñu bindee moo ñu ko mooy danoo wuute yàlla wax na ci alxuraan bu ko neexoon mu def ñu ñëpp ñu jëm am benn jubluwaay benn mel wenn melokaan waaye moom la neex mu def ñu ca wuute kon nag wuute googu ñu yàlla moo ñaar il faut ñu nangu ko adduna fexe fexe ba ñëpp bokk gis-gis mënuñoo fexe fexe ba ñëpp bokk benn melokaan mënuñoo fexe fexe ba ñëpp bokk benn jubluwaay kon nag nangu wuute googu dana tax ñu mën koo wëyal wuute googu bu ñu ko nangu mooy nag ku nekk ab nga mbatiit am nga sa culture sa aada ak sa cosaan ñu fexe ba sa culture sa aada ak sa cosaan boobu ñu respecté la ko sàmmal la ko ku nekk am nga sa pas-pas ñu sàmmal la ko ku nekk am nga say mbiri bopp ñu sàmmal la loola ànd nag ñu ànd ak sàmm li nga xam mbooloo mi ñëpp ñoo ko bokk. am ci bu ci am solo nag boo xam ne moom itam moom mën mat naa bàyyi xel mooy li ñuy wax sens de responsabilité maanaam mooy nit ku nekk am yëg-yëg ne man mi responsable la ci bépp acte boo xam posé naa ko te mi jëm ci mbooloo mi lu ci juddoo rek man maay responsable maanaam nga xam wóorlante yow mbooloo mi ànd nañ nos nekk benn. mu wóor la ne boo ca yee fitna boo ci doxalee doxalin boo xam ne di indi fitna ci biir mbooloo mi na la wóor ne lépp lu juddoo ci fitna ji jàppal na yow responsable nga ci loolee. loolu nag defe naa ne bu ko ñëpp xamoon dana saafara lu bëree bëri kon yooyu yenn la ci yi nga xam mën nañ ko tudd te muy jëm ci yi nga xam ne nii dafay dëgëral paix sociale ci biir aw askan suñ fàkk. jërëjëf Sëñ Fallou wax nga tomb yu am solo ci ay mbir yoo xamante nii mooy dëgëral. Euh, jàmmoo cim réew ñu tudd ci lu am solo muy muy muy justice maanute nga xam ni euh, askanu yëpp buñ maase woon yëgandoo ni euh, loi yi ñu teg ñëpp ñoo ci yem loola tomb bu am solo la ci jàmmoo nga tudd tamit lu am solo ci diiso comme ni ñu koy waxee réew mi nañ koy kii waxtaane mm-hmm. te bañ koo paacoo mm-hmm. Euh, tey it yëgoo gi dana ci am solo nga wax ci lu am solo mooy def li ngay def ba pare euh, soog a ñëw ci nit ñi euh, loolu am na lu muy yàq ci li ñuy wax paix sociale <laughs> waaye kenn ku nekk nangul sa morom nga wax ci lu am solo nag mooy kenn ku nekk yëg ni lii moom yaa ko moom am na foo ci war a yem ak li nga xamante ni nii nga koo bokk ak nit ñi mm-hmm. Eh, te loolu mooy jur li ni wax nangul kenn ku nekk nangul sa morom yooyu am solo la eh, bi ci ëppati solo nga xam ne mooy taaw yooyu yëpp nag mooy nit ku nekk yëg responsabilité ci lii tax ay social am boobu moom defe moo ci ëppati solo mhm. ndax eh, loolu bu amul rek yàqu sa am xañ na kon du ñàkk yoo xamante nii comme ni mu amee yoo xamante nii mooy tax paix sociale gën a dëgër xañ na dina am ay gàllankoor yoo xamante ni tamit mooy gàllankoor paix sociale di jàmmoo ci am réew wala waskan yooyu yooyu ciy tuddal. jërëjëf euh, sëñ Fakk kon bu ñu xamee yi nga xam ne nii da koy dëgëral am na yoo xam tam bu duggee ci biir mbooloo wala ci biirum réew dana gàllankoor paix sociale bi dana gàllankoor jàmm ji ñu waroon a mën a dund muy tooñ ak jalgati ak ñeneen fu mu am rek jàppal ne fipp moo cay topp moo tax fi ne rébellion boo gis. la muy njëkk wax mooy dañ ñoo xañ suñu àq maanaam suñu àq ak suñu yelleef ci dëkk bi dañ ci réew mi dañ ko joxul ñu daal di fépp kon fexe ba tooñ ñu moytu ko lu ñu mën ñun ñëpp waaye tam jalgati ak nit ñi ak seen yelleef ak seen i sañ-sañ loolu tam ñu di ko moytu ndax loolu mooy indi fépp ci biir mbooloo moo mënta gis léeg-léeg itam am na beneen boo xam dana koy gàllankoor dana yàq social bi man dana yàq dundin bi ci biir mbooloo mi mooy rawante bu jéggi dayoo ci wàllu am am bi xëy na dangay ngay dégg ñaan séddale bi yàlla mooy ñii dañu am bëgg jël ñii dañu am dara loolu xëy na loolu waxin la waaye suñu borom alal ji sax daf ko daf lu ko joxoon nga moom ko daf lu ko dénk te moom la ko dénkee daf laa wax ne defal ma ci lii lii ak lii moo tax kon kenn amul sañ sañ ñu denc alal say morom di di tumurànk kon loolu bu ñu ko waxtaan xëy na déggin la waaye du séddale bi yàlla kon wuute gu ëpp ci wàllu koom-koom ci biir mbooloo dana tax te dimbalante gi war a am amut dana tax ñenn ñi nga xam ne nii seen loxo jot seen gannaaw bu yàggee mën naa jur fiiraange bañ yàqal seen yeneen moroom yi nga xam ne nii ñoo feete kaw moo tax léeg-léeg boo duggee ci askan nga gis ñii nga gis ñaari ñu tëral ñu faatu ci misaal nga laajte kii lu ko lu ko faat mën naa am ñu ne kii de xëy na lam war a am ci lekk ak naan maanaam moom la amul maanaam xiif daal moo ko moo ko moo moo daanaka moo ko moo ko lor ba noppi nga gis kuñ tëral ci wetam nga laajte lu ko lu ko dal moom ñu ne moom daa lekk lekk gu ëpp bu fër nga gis ni loolu contradiction yooyu di am léeg biir mbooloo day jur ñàkk jàmm ci biiru mbooloo moo tax wuute ëpp ci wàllu ni ñuy seddalee koom mi dafa mat di bàyyi xel ci biir mboolooy moo tax askan wu mënti doon bu ñu bëggee cohésion sociale am ci biir mbooloo ma dañuy fexe ba alal ji mbooloo mi bokk ku nekk di ca mën a gis sa bopp waxuñ nag ñu séddale ko ci yem waaye daal ku nekk na nga cay gis sa bopp léeg-léeg itam nga dégg ñaan buur ak baadoola maanaam ñi nga xam ñoo jàpp seen bopp buur jàpp nañu war nañu mën a dund nam leen neexee ñi nga xam ñoom ñooy baadoola yi ñu ne ñoom seen ñaq ci la buur war a dund loolu déggin wu juuna la woo xam ne nii mbooloo moom réew moom nekk bu yàggee cohésion ba fa amoon dootu fa am ndax loolu dam dañ indi fi mooy waral léegi nga gis boo demee ci réew yu bëree bari ba ci suñu réew mi da ngay gis ñi dëkk ci banlieue bi ñaari fépp foofu lay tàmbale ndax dañuy gis ne ñële dëkk ci biir taaxee ñoom dañu jàpp ne ñooy buur yi ñu ci ñoom ay baadoolo lañ bu ko defee loolu la lay gën a jub fépp ci biir mbooloo kon nañ fexe ba xam ne buur ak baadoolo loolu xëy na ay terme la waaye askan wi ñëpp bokk yem réew mi ñëpp a ko bokk alal ji fi ne fi ñu ko bokk kon war na na fexe ba niveau yi lu gën a mën a jege gën a baax bokk na ci boo xam ne dafa gàllankoor tam léeg-léeg nit ñi tam li ñuy wax naa fekk dafay am ci suñuy melokaan mooy ñun ñu baree bari ci ñun bu ñu nekkee ci biir mbooloo mi di dund ak tooñ mën nay ñëw di dal ci mbooloo mi waaye comme gis nga ne yow tooñ googu dalitu sa kaw wala bokk sax daal yow yaa ngi jariñu ca kay tooñ ma ngi lay jariñ da koy nëbbal tooñ googu boo demee gis ne nag léegi la nga doon intérêt ba nga doon am foofu amatoo ko nag nga bëgg ñëpp fipp ànd ak yow loolu tam den léeg-léeg moo tax nit ñi tam il ñu bàyyi xel ci ne li ngay bañ dee ko bañ donte yaa ngi cey jariñu fekkente nu dëgg lu dëgg da koy bañ donte ma ngi lay jariñ ay caaxaan donte ma ngi lay jariñ da nga ko lu dëgg da nga koy bañ donte ma ngi lay jariñ lii dëgg tam da nga koy nangu donte sa njëriñ newu ci yooyu itam def ne bokk na ci nga xam dana tax waaye nag bu fekkente nit ñi yëlli fekk sa intérêt mi ngi dox ñi ci des sa yoon newu ci la ngay wax loolu dana tax ñu dem ba mu yàgg ñi nga xam ne gisuñ seen bopp ci fii mën nañu andi ay jafe-jafe bi ñuy teg ci kaw nit ñi tam léeg-léeg dana indi jaxasoo ci biir mbooloo te nga gis pression yu bëree bëri day tegu ci kaw nit ñi léeg-léeg jox ci misaal ne mi ngi mel ne nga jëloon mbuus di ko wal mbuus boo koy wal te bàyyi bu yàggee danaan tëf bu nee tëf nag la newoon ca biir mën naa am sax mu tax koo xam ne ni yoonam newutoon ci wal ga moom <coughs> kon pression bi ñuy teg ci kaw mbooloo mi dana waral ñu dem ba mu yàgg yëf yi ne tëf yooyu nag yu bari la ci wàllu koom-koom maanaam tey nga gis adduna bi dundin ni mu jafee tey ku nekk tey nga xëy matal sa dépense su kër nekk sa problème waxuma laa nag yeneen warteef yi paj ma ñëw fële njàngum xale yi ñëw fële mu nekk yu baree bari yoo xam ne aju na ci kaw bopp nit ñi te seen loxo jotu seen gannaaw te gisuñ ku leen ci war a jàppale loolu pression la boo xam ne ngi tegu suñu kaw pression sociale bi ñëw tegu ci gis tey diw tekki na diw tekkiwu yooyu di ay pression yu teg nit ñi pression politique ñëw tegu ci yooyu kon yëpp dajoo nag muy yoo dañ koy teg ci kaw nit ñi muy pesé ci seen kaw bu yàggee loolu da jékki-jékki mbooloo ma ne tëf bu nee tëf nag euh, takkaat ga dana xaw a jafe lool lool lool. am na ci boo xam tam nag euh, dana tax léeg-léeg dundug mbooloo mi jaxasoo mooy yaakaar ju tas xam nga léeg-léegi nit ñi dañuy yaakaar su fekkee saa yaakaar yaakaar ju tas nag yaakaar ju tas nag bari na lu muy jur tey boo xoolee tey xale yi nit ñuy doxale ci yenn réew yu bare ba dafa def seen réew ci la bokk da lay wóor loolu violence bi ñuy dund te li ci jóge ci xale yi. loolu dangay li may tegtal ni mooy xale seen yaakaar moo tas xam bu njëkk dañ la gëmuloon xale ne leen ku jàng ba am diplôme yi nga war a am da am fonction ci misaal da nga am salaire bu baax da am nangam-nangam xale yi di góorgóorlu jàng ñi dem ba njàng ma gis nañ njàng ma léegi doxatul da ngay jàng ba am diplôme yu kawe lool ñëw foo foo xëy am xëy tëlëm sa sa yaakaar tas ñu ne woon léegi xëy na boo jàngee métier nañ def formation professionnelle enseignement professionnel ñu jàpp ne boo amee métier boo génnee dootoo soxla sax ab salaire waaye da ngay demal sa bopp nga jàng métier ba man ko métier mu dootu la mën a yor tey menuisier yu bari maçon yu bari ñu baree bari yoo xam seen métier mënatu leen yor seen yaakaar tas foofu. ñu jàppoon ne kon loolu yëpp amatul léegi mën nañoo dem dukki bitim réew Europe wala feneen ak feneen jàpp nañu foofu boo fa demee situation mën naa baax ñu doon dem ba mu yàgg ñu xëy xëy dem mënatu nekk ñu tëj réew ma kenn mënatu dem kenn mënatu dikk. yooyu yëpp nag dajee ci bopp nit ñi nag seen yaakaar tas moo tax nga gis xale yi di sóob seen bopp ci géej gi ñenn ñi di génn révolté ak yu mel noonu kon yaakaar yi tas yooyu bokk na ci li indi jafe-jafe ci biir mbooloo yooyu yëpp bu fekkente ne tënk nañ ko kon dañuy gis ne euh, mbooloo li koy aar mooy fexe ba gàllankoor yooyu ñu fexe ba liggéey ci ba yooyee mën a mën a saafara bu ko defee dund gi ñu dund ci biir mbooloo mi dana mën a gën a jëm kanam. jërëjëf Sëñ Fallou ay tomb yu am solo yoo xamante ni. Euh, tudduga yu bëri yoo xamante ni day yàq li ñuy wax paix sociale nga xam ne benn benn boo ci jël rek euh, yàq na cohésion sociale bi war a am ci am réew waxuma nag boo dajalee yëpp waaw moom mhm. si ba mu gën a mag lay doon mhm. te day mel ni jamono ji ñu nekk di ko dund boo xoolee yi nga fi tudd yëpp nga xam ne ay mbir la yuy gàllankoor euh, kii bi defe naa loolu lu mat a bàyyi xel tomb yu am solo mhm. xaj na kon tomb bi ni mujjee tey li nga xamante ni moom nga doon waxtaanee di cohésion sociale di dundu jàmmoo tey boo ñu doon waxal màggal ak euh, rôle bi nga xamante ni am na ko ci saxal euh, paix sociale lan nga ñuy wax. jërëjëf euh, sëñ Fàkk màggal di bis bu am solo ci Sénégal bokk ci bis yi gën a màgg Sénégal di dajale mbooloo moo xam ne tam neewaane fu ñuy dajaloo ci mbooloo mu toll noonu ci àddina bi. foofu nag li ciy seet na gis ne da am na rôle bu am solo boo xam ne màggal da koy def ci fexe ba nit ñi jàmm mën a sax ci biir mbooloon bi ci jiit rek mooy événement la bu rëy boo xam bu ñëwee dafay wëlbati gis-gisu nit ñi mu jëm ci beneen beneen jubluwaay li ñuy wax opinion publique ci réew yi ko xam dafay influencer ci doxinu mbooloo mi day influence jàmmi mbooloo mi moo tax léeg dañ ciy liggéey liggéey bi mag a mag moo tax réew yu bare bari dañ koy natt opinion publique bi fu mu jëm mooy mbirum mu tuuti tuuti bu fekkee fexe ba ñëpp di ko waxtaanee rek mu doon lu rëy waaye mbir lu rëy rëy soo fexe ba kenn waxtaanee ko rek mu daal nekk lu tuuti. ni waxtaanee ko nit ñi waxtaanee loolu ñu ci opinion maanaam noonu muy jaxital ci nit ñi foofu nag dañ koy natt ci réew yu bëree bëri ndax dafay influence ci jàmm ji. moo tax li ngay ñu wax leen micro trottoir wala ñu def sondage wala yu mel noonu yooyu dañ koy natt ba xam nit ñi fu ñu jëm dëgg-dëgg état yu bëree bëri nag dañuy gis opinion publique boobu. bu jubloo foo xam ne nii gis nañ ne arrangé wul état bi dañuy xëy xëy créer loo xam ne nii day dévier nit ñi maanaam dootuñ wax ca loola ñu créer lu loo xam ne nii nit ñi dañuy fàtte lañ doon waxtaane nekk ci beneen débat bu ko defee ñoom loola ñu mën ko éviter ba mën a détourner nit ñi loolu kon système la boo xam ne nii réew yi ba dañ ci dugal seen loxo ngir mën a neutraliser wala bu mën a maîtriser seen situation seen réew màggal Tuubaa nag loolu daf ñu koy defal te maanaam sax na duñ ko yëg fi ne màggal Tuubaa bi mooy xew-xew boo xam ne nii bu ñu xasee ba ne màggal gaa ngi ñëw daanaka kenn dootu waxtaan leen dul màggal gi lu mbir lu mu rëy rëy dañ koy teg suuf ba màggal gi jàll moom te mën naa am sax bu màggal gi jàllee far kenn dootu ci wax loolu moom lu ñu seet la lu bëree bëri nga xam fi nekk ni boo xoolee rajo yeeg télé yeeg waxtaan yeeg grand place yeeg discussion yëpp dafay jëm ci màggal Tuubaa kon mbir yëpp teg nañ ko suuf jëm ci màggal Tuubaa loolu mën a jox misaal yu baree bari ci misaal te yaakaar naa booy fàttaliku am na fi màggal goo xam ne jamono choléra la woon ba ñëpp doo xam màggal dañ ko war a fomm waaye gis nga maag bi bu ñëwee dafa mel dañu fàtte choléra far ñu jógee sax far kenn gis ne kon wëlbati na opinion publique jëmal leen feneen gis nga màggalu corona gi buñ ne corona ñooy dem ñu ne corona nag nangam dañ ko rek kii ñu ne parfois ñu ne nañ màggal bañ màggalee dañoo wax ne màggal nañ bo kii zéro cas amul nang nangam ñu far sax corona jàpp ci jaar ci nekk loo xam ne nii kenn waxtaaneetu ko wala boog amatul influence bi amoon ci biir réew mi kon nga gis màggal bu ñëwee dafay wëlbati gis-gisu nit moo tax nag bu nit ñu nekkee ci xat-xat xew-xew bu mel nii bu ñëwee wëlbati seen gisin dañuy jàpp ne bu jàllee sax maanaam maanaam ampleur ba mu amoon wala ba engouement ba mu amoon dootu ko am ci biir mbooloo mi kon màggal danay doxal rôle bu mel noonu léeg-léegi ci biir askan moo tax situation yi nga xam ne ci la Sénégal tool tey ñoo ngi ñaan màggal gi nam ko daan defe ci xew-xew yooyu yëpp rek bu jàllee mu nekk loo xam ne nii solution définitive lay doon ci problème yi nga xam ne ñu koy dund kon loolu benn la ci mooy wëlbati gi muy wëlbati gisiinu nit ñi jëmale ko feneen jafe-jafe nekkoon ñu fàtte ko ba dugg ci beneen situation bu bees dana indi itam ay relations yu bari yuy sos ci biir màggal bi màggal mooy xew-xew boo xam ne nii ñëpp fii daje politiciens yeeg sëriñ si yeeg salafiste yeeg soufiste yeeg ñëppay ñëw ñu dul julli sax dañuy ñëw foofu nag dañuy gis ne nit ñu nag bu dajee ay relation dafay sosu ay xamante dafay judd fi ne màggal gu jot rek yow da nga xam koo xam ne xamoo ko te xam googu nga koy xam rek dafay tax askan wi di gën di ràbbaloo te askan wi gën di ràbbaloo xamante gi gën di am rek léegi jàmm ji gën di sax sëñ bi boo demee ci yenn bindam na koy jàngale nee na nga dajeeg nit ñi nga asalaamaaleykum wa waaleykum salaam loola la ciy juddoo kenn xamul nu mu toll ci lu baax nga mën ngeen dem ba xaritoo ci dama dem ba tuddante ci doom dama dem ba joxante ci ay teraanga yu baree bari di juddoo yoo xam ne ni mi ngi tàmbalee ci baatu salaamaaleykum kon nag nit ñi daje gi ñu daje ci benn barab xamante yu bees yi ci juddoo ak relation yu bees yi ci sosu dana tax askan wi gën a ràbbaloo ba nga xam ne nii xamante googu day jur jàmm ci biirum réew kon loolu tam ba tey bokk na ci jeexit yi nga xam ne màggal mën na ko am ci biir kii li ma doon wax léegi nag muy euh, diisoo gi diisoo gi itam lu am solo la ci ma waxoon léegi ci li saxal jàmm te xam nga ne màggal bu jotee tey maanaam mbooloo yi ne Sénégal yëpp ku nekk da am délégation bu la teewal fii ba ci bitim réew sax ay délégation dañuy jóge bitim réew moo xam ak ñeneen ñi nga xam sax daje googu ñu daje benn baram nag dana tax ñuy mën di diisoo waxtaan ci mbirum réew mi waxtaan ci mbirum àddina bi fi mu toll réew mi fi mu toll situation dëkk bi loolu jokkalante googu ñuy jokkalante ka xalaat dana jagale suñuy gisiin suñu opinion ba nga xam bu ñu ci jógee pour boolewaat nit ñi dana dana yomb loolu kon loolu tam taxawaay bu màggal mën na ko am ci ci ci ci ci kii moo tax léeg-léeg dañuy dañ doon na doon na baax lool man wax nañ ko ay yoon nañ ci ay jotaay li ñuy wax maanaam màggal gu jot gu weesu gu nekk comme fii li kër yëpp fi daje Sénégal yëpp fi daje ku nekk am nga fi délégation yaakaar naa ne war na ni mën a génne li ñuy tuddee bayaan bayaanu màggal 2000 mil 2023 bayaanu màggal 2022 nga xam ne dañuy xool situation adduna fi mu toll fépp ñu ne maanaam nitu diine Sénégal de daje nañ barab sàngam diisoo gis nañ ne adduna bi fi mu toll lii ak lii ak lii lañ ci gis lii ak lii lañ gis ne ko caa def situation réew fi mu toll kilifa diine yëpp daje nañ délégation bi daje waxtaan nañ génn benn manifeste benn déclaration commune boo xam ne nii dañ naan kilifa diine gis nañ waxtaan nañ ba gis situation réew mi ñoom tënk nañ lii ak lii ak lii buñ ko defee nii ak nii waruñ ko defee nii ak nii nañ ko defee loolu def naa ne gëm naa ne ci li war a mën a tax màggal gi am taxaw taxawaayam dëgg-dëgg ci la bokk te loolu dafa amul ci yeneen jataay Sénégal amul benn barab booy dem foo xam da fekk kilifa diin yëpp mën faa daje ci daje bi mel noonu kon defe naa ne loolu tam mën naa jur jorom ci biir réew mi boo ci yokkee nag discours bi nga xam at mu jot dañ koy jàllale ci turu sëñ bi muy discours boo xam tam war na mën a bàyyi am impact bu am solo ci dindinu askan wi xëy na nag euh, waajtaay mën naa am danay des léeg-léeg wala boog xëy na daal waris na si gën a mën a tax am beneen taxawaay daal ba mu gën a mën a joxe dëgg-dëgg li nga xam ne ni mooy mooy mooy mooy mooy mission bi nga xam ne ni moom la ñuy xaar ci màggal Tuubaa ngir mën koo joxe ci jàmm ak salaam biir réew te mooy discours bi di jël actualité bi di jël li nga xam mooy xew ci réew mi waxtaan ci ci façon boo xam ne ni par parloo du jàmm faru maag kii faru maag ma saam faru maag ma demb waaye lii lañ gis ne noonu la war a demee lii lañ ci xalaat bu ko defee nag bàyyi nag ñi nga xam ñoom la ñoom la dogal ni seen loxol ku nekk nga xool na nga cee mën a jariñoo nga jariñoo defe naa loolu tam discours boobu nga xam day jàll mu jot sëñ bi defe naa mën naa bàyyi impact bu am solo ci di boole mbooloo yi waxtaan yi ñuy def muhaadama conférence yeeg programme télé yeeg programme site internet yeeg yooyu yëpp nga xam ne ay débat lay day jàll yëpp defe naa war nañ ko mën a orienté mu jëm ci li nga xam dafay tabaxaat askan wi mu nekk benn ndax dañuy wax ne réew day toll foofu bu fa tolloo lépp dañ ko war a juble mu jëm fenn fi mu nekk nii Sénégal fi mu toll jamono yi maanaam jamono yi ñu toll nii fi ñu toll nii li ñu soxla woon mooy imam bi politicien bi sëriñ bi conférencier bi képp koo xam da ngay wax ñu lay dégg sa discours fenn la war a jëm mooy nu ñuy fexee ba réew mi ñu tabaxaat ko jàmm ji amoon démb bërki démb dal gi fi amoon démb bërki démb nu nuy fexee ba mu dellu si loolu defe naa discours yëpp foofu lañ ko war a ndax am na réew yu bëree bëri yoo xam jaar nañ ci nekkoon situation yu mel nii waaye dañoo fexe ba seen waykat yi sax maanaam ñi nga xam ne ñuy woyee ko caaxaankat yi yëpp seen discours dañ koo jëmale fenn te mooy fexe ba réew mi nu ñu fexe ba jàmm ak salaam dellu si loolu nag defe naa ne euh, lii jàll ci communication ci màggal gi ci ay conférence ci ay programme ci télé ci ay programme ci rajo ci ñiy wax loolu lépp defe naa bu ñu ko orienté foofu man naa bay jeexee ju am solo ci biir dundin askan wi kon daal bis la boo xam ne nii euh, jàpp nañ ne euh, bu jàllee dëgg-dëgg impact bi mu am ci dundin askan wi lu ñuy gis la bu bu jàllee te du am sax lu ñuy xaar. jërëjëf sëñ Fallou euh, tomb yi nga développé am na solo nga xam ni day mel ni fi nga tëjee joxe nga kalimatu miftaax maam moo kele bi euh, lii tax li doon waxtaanee muy paix sociale ak euh, loolu nga wax ci màggal nin ko war a jëmbale ngir tabax loolu. rawatina euh, bu màggal jotee xañ na euh, occasion la màggal gii di ñëw ak contexte bi nekk di ko dundu mm-hmm. ak euh, expérience yi nga xam ne dëgmal nañ ko ci senegal loolu ñu jëmmal ko ci màggal gii ñu nekk. Mm-hmm. loolu dana nekk lu am solo ndax noonu nga ko waxee mooy fexe ba orienté opinion publique bi ñëpp jëm ci benn yoon te mooy fexe ba luy jëmmal paix sociale ci réew mi. loolu xaj ñu ngi ci xaar kilifa yi rawatina màggal gii nga xamante ni moom occasion la ngir génne suñu réew ci contexte bii ñu nekk yóbbu ko ci contexte boobu ji nii day tax eh, tomb bi ñu doon waxtaanee eh, sax fi muy paix sociale kon mbokk yi loolu lan amoon ci ay tomb yoo xamante ni indi woon nañ ko di leen jaajëfal